fondation Défense 221 dafa nekk benn organisation euh, non gouvernementale mooy benn ONG boo xam ne moom sosoo fële sa Amérique euh, tamit nekk ONG fii nii Sénégal nga xam ne def liggéey yu bëri si wàllum philanthropie euh, di dimbali ñun ñi di ñu ñàkk si wàllum santé si wàllum lutte contre la pauvreté ak aussi tamit si wàllum addiction d'eau ak fondation bi dafay liggéey lu euh, bëri si mbirum orphelin yi jàppale orphelin yi ak tamit si leadership di former nouvelle génération leadership africaine. dama am mbégte am contentement di ñëw fii nii bu ma xam xam ne que ñun Mbàkke Mbàkke Mbàkke tamit nekk euh, dëkk boo xam ne dafa am symbolisme si ñun di dëkk euh, suñu wasila Cheikh Ahmadou Bamba euh, te fii ñu ñëw tey dafay dëkk boo xam ne fii laa juddoo si hôpital bi tamit nga xam ne fii la ñu fekk baax donc ñëw Mbàkke dafa nekk mbégte mu rëy te tamit dafa nekk loo xam ne waa Mbàkke yàgg nañ koo laaj tey nag la ko yàlla dogal mu ñëw donc matériel bi nga xam ne tey ñoo ngi ko fi indi moo ngi matériel valeur u 443 millions matériel bi nag dafa ànd ak lu ñuy wax ay euh, équipement équipement yi nga xam ne investissement la am par exemple ay lits d'hôpitaux am matériel échographie euh, dernière génération am ay table de consultation donc euh, bëri tamit ay consommables te lu jëm si mu faj yi ngay def si premier soins yi muy ay seringue lu nekk matériel fi mu ne nii am na ko loo xam ne si ak tamit am na chirurgie matériel chirurgique tamit bëri na si loo xam ne dañ ko tàmbalee